2024 yi ñu jëm mm-hmm. euh, bu dee lii nii dëgg la moom Ousmane Sonko du mën a bokk ci élection yi mm-hmm. naka nga gisee génne bi ñu génnee Ousmane si si si vote si élection yi mm-hmm. non xam nga Ousmane kan moo mos def si boppam ni Ousmane day bokk ah sénégalais amoon nañ yaakaar bi de même waa Pastef sax ne woon nañ day bokk man mm. waruñu def suñ bopp loolu xam nga su fekkoon ni ñoom mësuñu ko fi de mun nañoo nekk di ci werante mhm. mais ku xam ne def na ko defati defati defati mhm. su xoola tey jii ma wax la benn affaire mhm. kii mbeje su la diggee mbej yaa ngi dégg est que gëmoo ni dina la mbej dalay mbej kay kan moo mbej Khalifa Sall Macky Sall Macky Sall ku mbej Karim bu bu bu bu bu defee Ousmane xoola xam nga lan la nit ki boo doxul loo gis leer na la xoola benn scénario xam nga léeg-léeg dañu naan diw da ngay gis benn artiste boo xam ni day jouer dara bañ naan kii daal benn scénario bii rek la am. saa yu nekk moom lay jouer. moom lay jouer waaw ma ni ndax dama lay laaj scénario bi ñu jouer xalifa Sall ak bi ñu jouer Karim Wade ak bi ñu jouer Ousmane Sonko lan moo leen wuutale loolu laay laaj. amul lu leen wuute amul wuute xoola Khalifa Sall nuñ ko def. lan la gaa mi waxoon day bokk force. du woon noonu. ba mu dem ci sëriñam du dëgg. lan lañ waxoon ci Karim Wade du bokk hmm. léegi bu ñu toogee def lu mel noonu usmaan Sonko yaa ngi dégg xoola mais lan lañ war a yaakaar suñu biir ngoox benn yoon xam nga tayoo ko hmm. moom ngooxu nga ngooxi ngoox wax yaa ko tay te ci tayeef lañ nekk di ñu ko def ñun nag ñooy tay taylu hmm. tay taylu baaxul xoola man bërki dem bi ma fi jógee lu ma la wax dama ne la nañ wut nañu wut plan B lu ma la wax waxuma la ko xam nga lu tax ma ne la nañu wut plan B mhm. parce que kii li gën a jafe moom la réussir li gën a jafe xam nga lan la woon mhm. deux ans deux ans li gën a jafe mooy jàpp Sonko jàpp Sonko mhm. jàpp Sonko te kenn waxul yaa ngi dégg et ma wax la benn affaire xam nga sénégalais problème am mooy dama yàgg wax nag yàgg naa wax xam nga bu njëkk ba dama naan Sonko dafa am lu muy xamal sénégalais yi te xamu ko ci boppam ñaata yoon laa wax loolu am na ñu ko dagg sax def ko vidéo yu bëri waa Pastef yi sax partagé woon nañ ko. Hmm. parce que gis nga Sonko yàgg naa def ay vidéo ne ko sénégalais boo ñëwee di di wax lu xam ne pour pour pour pour intérêt public. Hmm. sénégalais du la dégg mais boo ñëwee di wax sa intérêt intérêt personnel sénégalais dalay gaaw a dégg te Ousmane day ñëw di wax intérêt public waxul intérêt personnel. gis nga ña intérêt public boobu sénégalais du ko xaar parce que dërëm mu tayee ko gënal fukki junni suba ba pare ma wax la dara réew mi ak sénégalais yi lan moo leen wutale booy kan lan mooy réew mi. <laughs> sénégalais yi. Hmm? réew mi. réew mi xoola hmm. réew mi sénégalais yi xoola boo ne boo nee la lan mooy réew mi nga ne ma sénégalais yi. léegi su ma ñëwee ne la kan mooy sénégalais. mooy ki dëkk ci réew mi juddoo. xoola tey am nga tur xam nga. Mhm. ñu ngi lay woowee jaañ naa. waaw bu ma nee la sénégalais. bàyyi sa tur bi ñu lay woowee jaañ naar waaw lan moo tax ma naan la sénégalais lan nan la nit war a toll ñu ñu ne diw sénégalais la waaw hmm. xam nga ko lan moo la wuutale ak étranger yi hmm. am na ñoo xam ne ci réew mi lañ dëkk étranger yi sax leen gën dallu étranger bu ñu sol ba sànni ko moo leen gën xoola xam nga lan mooy réew mi nga xool réew mi lan moo koy doxal xoola réew mi xam nga si lan lay lekk si dimbalante hmm. boo xoola saa boo dimbalee sa moroomu sénégalais ku dëkkee réew mi jox nga réew mi mu lekk. Mhm. xam réew mi si lan lay dundee tay waaw xoola nga nga nga fekk téeméeri sénégalais seen bopp lu ko lënt nga fexe ba seen bopp ubbeeku ñuy dox si lu leer. loolu ñu koo gis muy fonctionner noonu loolu mooy réew mi mais tey ma ni ñii ñuy fonctionner ñoom ak ñun ñoom seen bopp lañuy jox ñu lekk wala réew mi la ñuy jox mu lekk wala kan lañuy jox. Mm. réew réew mi est-ce que xam nga am na ku mu bëgg. Mm-hmm. kan la bëgg réew mi dafa am ñu mu bëgg. ñu xam ne daf leen bëgg. réew mi bu ñu tegoon kaamil fii tey yow ma ne la waatal président bi ak Ousmane Sonko ak Bougane ñan la réew mi bëgg ndax ban waat ngay waat yow mm. Ousmane Sonko réew mee ko bëgg. waaw réew mee ko bëgg nan moo tax liir yu ndaw yeeg ku bañ ku nangook jàqa yeeg yëpp di riir waaw waxa rek mhm. lan moo tax usmaan Sonko dem ba ndroog allahuma salli wasifa boobu ñuy wasifa waaw bu ñu demee ba tey ñu xoola bu ngoon masaan jot ay timis boo masaan a nekk ci match futbal loo daan dégg loolu rek allahuma salli ala sayyidina muhammadi xam nga lool ngay dégg ñu dem ba ngoon jot nga nekk ci match football daan déglu lool naan gars yi gaaw leen léegi mu mhm. guddi gars yi sonkaliser affaire bi di yuuxu turam mhm. Mm-hmm. déggatoo jumaa déggatoo dara. Mm-hmm. yaa ngi dégg mais kooku est réew mi bëgg ko. réew mi bëgg nañ bu baax sax am na wala amul. ba pare ma wax la dara booy est xam nga kan lañ war a jox réew. kan lañ war a jox réew. xoola ma wax la benn affaire ñaata at tey jii ñaata candidat lañ am. bari nañ de am nañ cinquante neuf candidats. Mm-hmm. yoo xam ne ñu ngi joxe ay ndox ay soow. ay boisson ci mbedd yi di wër di taxawaalu léegi bi bi nga xamee ne élection yi ñëwul amul kan nga daan gis muy dem ci mbedd mi di tabax euh, école yi di jox askan bi ñuy lekk di leen jàppale di leen faj kan la benn bugaan mhm. tey jii nag téeméeri bugaan nga gis ñu fekk ci ko lu tax ñu toog ba heure bii ñoom génn di joxe ndox yi sa bërgi démb dama ñëw sama jabar si frigo bi mu def ay boisson ay ndox ak yëpp ma ne ko ku def lii wax na moom dama tur bi mu ne kooku ñëw na fa ku baax la mi jox nañu ay boisson ay soow ma ne ko moytu leen mu ubbi boisson yeeg soow yi ba pare booy est-ce que xam nga beneen affaire dinaa ko fi jàllalaale wa maa ngi si sonk nag waaw am na ñuy wër kër nit ñi naan la état bi dafa am dafa am euh, euh, waaw yu muy yu yu muy jàppale nit ñi pour ñu liggéey ak ay fondement la ñoo affaire yooyu mm, dañ lay laaj cinq cent ba pare faut photocopie sa carte d'identité dem parrainage ko dañ lay nax ci carte d'identité naxaat la cinq cent yóbbu ku ñu laaj sa carte d'identité lànkal ba wut ku la lànkale hmm. yaa ngi dégg léegi léegi waaw ñu ngi koy def mais dama ne la Ousmane Sonko mii réew mi moo ko bëgg hmm. ndax lan dafa ñëw yee askan bi gis nga tey ma wax la benn affaire barke rasulullahi xoola sama xalaat laa la wax man nag hmm. sama xalaat xalaatu keneen affaire am la xoola Bougane Ousmane Sonko Abdourahmane Diouf gis nga ñooñu képp ku leen sànni lul war war nga sa bopp. limaat ko. ma ni bugaan laa wax de. bugaan mi nga xam ne boobu ba léegi. fukki dërëm yoru ko buñ ku nekk ci ndox mi mu ñëw fekk la fa jox la ceeb jox la diwliñ di tabax ay école xoola am na école yoo xam ni moo ko tabax si loxo boppam moom. ma ne la bugaan Ousmane Sonko mi yee askan bi Abdourahmane Diouf mi nga xam ne day wax dëgg. wan ni leen carrément parewul sàcc seen dara laa la wax de ñooñu dama ni ku àndut ak ñoom war nga sa bopp système bi fi nekk bu dee sénégalais yi bëgg nañ ko dajj ci dajj bu gaaw nañu fexe ba ñooñu xoola Bougane euh, kii Ousmane Sonko Abdourahmane Diouf ku dul ñooñu bu leen kenn sànnil d'accord Jimbori Bougane bu bokkul du la euh, safurla autant pour moi Jimbori Bougane mi nga bari moo tax Sonko bu bokkul du la bett bettu ma parce que Sonko nii ñu ko def tey Sonko kan la dese laa la laaj. Hmm? kan moo xoola nii nii nii kan moo génn kan moo ñimee génn ni man maay man li Sonko doon def maay xaritam taxaw carrément ci wetu Sonko def li Sonko doon def amut. waxal. Hmm. Sonko xoola bàyyiwu fi nijaay bi muy dugg kaso. bàyyiwu fi bàyyi bu muy dugg kaso bàyyiwu fi jigéen bi muy dugg kaso bàyyiwu fi xarit bàyyiwu fi dara Karim Wade bi muy dugg kaso bàyyi na fi bàyyi bu toll ni ab Ablaye Wade. bàyyi fi ndijaay yu toll ni ñoom Farba Senghor mhm. bàyyi fi ngandam avocat bu toll ni Madické Niang ba fi ba fi sëriñ ba fi lépp Sonko bu dul mennum sëriñam bii di génn di wax kan nga déggati mu wax ci Sonko dara d'accord lu dul bugaan encore bi xam ni di dëggal Sonko ñeneen ñi si des yëpp xam na la ñuy def hmm. dañuy bàyyi ba booy Sonko lise benn affaire benn jaañ naar amul ku mu laaj affaire Sonko ndax gisatul Sonko tere nañ ko Sonko nga dem fekk ko xam ne Sonko mës naa ànd ak moom ànd ak Sonko ak nekk xaritu Sonko du benn hmm. ànd ak Sonko si parti bi ak bokk ci parti bi du benn am na ñoo xam ne dañuy bokk parti bokkuñu ci parti nga dem laaj leen ñu naan non suñ plan A suñ plan yow plan A plan gis nga plan B yow yaa koy sàkkul sa bopp moo wax la dara xam nga Nelson Mandela waaw xam nga ko bu baax. waaw est-ce que xam nga apart nekkul woon seefu apartheid. Hmm. nekkul woon seef bi. Issa Miko mooy seef bi. Hmm. kooku lañ rey Mandela jëngu. Uh-huh. est-ce que xam nga loolu lan moo def Mandela plan B. dafa xool nu Issa Miko doon def mu def ko di nga dégg Assane Ndiaye di ko way naan Issa Miko jàmbaar ja dem na Issa Miko mooy mooy patron Mandela. tey jii su ma la laajoon da ngay foog ni Mandela mooy patron bi. d'accord dara waroo toog xoola bu loo loo toog. Mm-hmm. loo toog xoola ngóone bañ la ci tànn plan A ak plan bokkoo ci. Mm-hmm. xoola ngóone bu demee ba man ak moom ñuy def émission bi man war naa mën a feebar sax moom mu def ko. Mm-hmm. parce que boo yàggee njaw di njaw. yaa ngi dégg. mais bu fekkee bu ñu yaangee mu ne non non bu jimboori ñëwul dal moo koy def ko ma naan non ngóone laay xaar yaa ngi dégg mais léegi kon ñun ñaar kan mooy plan A kan mooy plan B. plan A ak plan B amul boo gisee ngóone da nga ma war a gis boo gisee jimboori war nga gis ngoone war nga gis jaañ naar mais gars yi da ngay leen di gis doo ci doo gis si ñoom sax Ousmane Sonko waxal rek. Hmm. Sonko du affaire bi du affaire na ay nit sax ñoo ci dugal fit fitna fit xoola ma wax la dara. Ah. politique ay tactique la ma wax la benn affaire mbër mi dem di bëre ji. Hmm. mbër mi moo nomee dem bëre ji. Ah. buy bëre ji supporter am yi dinañ jaar si mbedd mi këf gerefaas yu bari. Ah. léegi mbër mi la wala supporter yi. mbër mi la wala supporter supporter yi la de. Sonko est-ce que xam nga lan moo tax jamonoom metti mhm. jamonoom bi mu tombé nii di politique xam nga lu ko mettil waaw xam nga lu ko métti waaw mhm. xam nga. Mm. xoola dafa fekkee jamono ju xam ne amul dara jamono ju ñàkk booy bu ñu génnee duñ ci yam dañuy jël. réew mi toll léegi maa wax la dara Sonko nee nañ terroriste affaire yooyu kenn xamul ndax Sonko mës kii euh, naka Pastef ndax mës nañoo rey ay policier 88 PDS rey nañ juróom-benni policier est-ce que ay terroriste la ñu woon juróom-benni policier. 93 mhm. ñu rey benn magistrat. Mhm. avocat lañ rey yàlla na ko yàlla yërëm seeral yàqam si biir suuf maître sëy mhm. loolu bu ko sonk defoon fan la Sonko jom. dama ni ndax PDS mi nga xam ni si si pouvoiram def na loolu booba ana Ablaye Wade génnul di dox doxam. wax la. Hmm. Sonko nag lan moo léegi dama lay laaj pedes boobu lan moo tax tasu ñu ko woon yaa ngi dégg te ñoom si seen si seen euh, si seen affaire. Hmm. juróom-benn policier gaañu na ci. yaa ngi dégg hmm. magistrat bu ngand de génn ci àddina. léegi lu tax tasuñu parti PDS ca booba du Diouf lu tax tasu ko. lu tax tamit jàppul woon ab Ablaye Wade ne ko terroriste nga. léegi segam Ablaye Wade moo nekkul woon terroriste ca booba. nekkul leneen ak leneen génn di doxi lu léegi lan moo denc sonk eh, defe naa état continuité la de du dëgg mhm. defe naa tamit opposition continuité mhm. am na wala amut mhm. léegi dama laa laaj lu denc Sonko nii waxal lan moo ko denc état waxal léegi Ablaye Wade laa wax si seet jamonoom bi 88 xaw ma juróom benn police lañ ñoo génn àddina yaa ngi dégg. Mhm. lu tax nekkul terroriste lu tax Ablaye Wade tasuñu woon PDS ca booba waxal. d'accord kon léegi politique boobu. ak mhm. politique bii. Mhm. lu tax nekkul benn. ma répété waat ko parce que sénégalais loo bëgg mu mu mu dugg ci boppam da nga kay nafar. ma wax la benn affaire. waaw Ablaye Wade bi muy jaamaarloog Abdou Diouf Abdou Diouf xamoon na ci vie privée Ablaye Wade lu bari. Uh-huh. est-ce xam nga ci dara yow. waxoon nga ma ko fi waaw. Ablaye Wade tamit xamul woon vie privée Abdou Diouf. waaw léegi tay jii lan la ñuy def Ousmane Sonko nii ci vie privée mhm. ci yaayam ci jabaram ci ay mbokkam ci léppam bugaan noonu buñ waxee ñu ne la bugaan lii la nangam nangam miikiti naa yow ñi nga war a jàkkaar loolu yëpp boo leen tilimalelee bañ salte ngoone kan nga soxla. d'accord laa lay laaj. ngoone ba jax ah. jàmba naka nga gisee euh, ah. ki nga xam ne moo di son excellence euh, Macky Sall wala Ousmane Sonko. Euh, ni ñu ko ni ñu ko rajjee ci ci ci ci liste électorale yi ñu bëri ne nañ doo dootul mën a bokk ci élection présidentielle yi ba léegi galgal yi ñu ngi koy dugal bawuñ waaw galgal yi moom yaakaar naa ne yàq yàgg na euh, taxaw depuis bu ñu ñëwee nit ki koo xam ne da nga koo topp mhm. depuis ba mu nekkee impôt et domaine nga ko topp mu jóge ci ñu ñëw ci plan wu bi nga xam ne moom mooy plan wu Adji Sarr bi ñu dugalee ci Adji Sarr pendant deux ans yëf ya échec ñu ñëw ci Mame Mbaye Niang bu ñu jaalee ci Mame Mbaye Niang mën naa ne sax yëf ya échec na waaw parce que borom yëf yi ci boppam moo taxaw reposteel boppam mhm. génn wax ko ne doo laal dërëm ñu xam ne ni kii toll na foo xam ne tey jii bu koo yëngalee xale yi génn yëngal mhm. ñu jàppaat ko ci beneen plan gis ngeen ñu barricade këram mhm. ci homme politicien boo xam ne yaakaar naa li mu dund ci Sénégal kenn jotu koo dund mu ñu def ko ko cinquante cinq jours ñu toppaat ko toppaat ko ci lan vol de téléphone <laughs> moo tax bu ñu xoolee histoire am ak ñoom Karim histoire Karim ak histoire kee xam nga état ku mu bëgg daaneel da lay daaneel ak histoire Karim ak euh, Khalifa Sall ba tey du benn parce que ñooñu dañ leen a tuumaal ñu sàcc ay milliards ñu jër leen teg leen mais Sonko sooy xool lu ñu ko arrêté da nga naan vol de téléphone. Mm-hmm. <laughs> mais Sonko lu muy doyee téléphone ku jaar de domaine 15 ans yàlla blanchir la kenn toppeew la dara nga daal di ñëwaat fii. di liggéey ci ko ci euh, ci Adji Sarr ñu toppee ko ci lu ne lu ne lu ne yàq deram pendant deux ans ñu topp ko diffamé ko difformé ko dëngal ko wengal ko lu nañu wax ko ci wax mm. bu ñaaw mu ñëw yàlla setalaat ko foofu ndax lan ay ay ay ay ay vol de téléphone mooy li ñuy wax ci saa ne nekk na loo xam ne yaakaar naa ne Sénégal mais bu demee ba ñu tëj Ousmane Sonko téye ko mm. Ousmane Sonko li li ko dal ci kaso bi yépp te Ousmane Sonko xeexul boppam Ousmane Sonko réew mi lay xeexal Ousmane Sonko Sénégal lay xeexal ba fi mu toll ni ñu jël ko jaay ko doole man ma ne ko jël ko teg ko benn place ndax lan ndax xeex nit koo xam ne ne tey jii da ko leer ne ne kii soo àndee ak moom élection wala koo samp mu ànd ak moom seen élection yaakaar naa ne nen yi dina bari. Mm. lii nag jaay doole la. jaay doole dëgg dëgg dëgg dëgg la ndax politique bi am ni bii ñu def Ousmane ko amul fenn ci Sénégal <laughs> koo bëgg a tëj tëj ko koo mën a humilier humilier humilier ko. ñi nga xam ne sax nee nga ay sàcc lañu nee nga leen sax donte ay sàcc ngeen kaay ma blanchir leen baal naa leen yërëm leen seen loxo bu la neexee ngeen ñëw bokk mais ki nga xam ne dama la koy wax ki sàcc ay milliards ak ki sàcc téléphone dama lay laaj ku baal ku sàcc ay milliards kooku est-ce que mënoo baal ki sàcc téléphone donte bu ñu nee Ousmane Sonko da koo sàcc gis nga jaay doole mi ci réew mi dañ ko war a arrêté mm-hmm. jaay doole bi mooy war a arrêté gis nga bu dee ku fi jël pouvoir nga toog def lu la neex jàpp nit ñi sasi na leen mbari na leen vinaigrette leen léegi boo fi jógee keneen ñëw fayeeku la kon fayeeku la loolu loolu nga def noonu sàcc ay milliards jëm dem kon Sénégal kon ñu baadoo lay fan lañ jëm baadoole yi laay laaj fan lañ jëm dafa am leen loo xam ne dafa rafetul hmm. rafetul Ousmane Sonko ku ne xam ne ne lii ñu ko teg nii metti na benn euh, fekk ko këram viole ko ay luwaam toj këram ba ay jabaram génn reposté nga jël ko teg ko place ndax lan ndax diw terroriste la diw nangam la diw nangam ndax la ndax kooku li muy wax li muy gis ci état bi taxaw yàlla may ko force tranquille yàlla def ko guerrier boo xam ne mooy taxaw di wax lépp lu ko naqari mu koy génnee ci xolam di ko wax ay waxam moo leen arrangé wul waaye waxu Ousmane Sonko bu leen arrangé woon dañ koy teg fii def ko zéro plus zéro égal zéro ndax am na ñeneen ñuy wax waaye donte seen wax fa saawu tabaay mais Ousmane Sonko fu muy wax mooy xasan fi mu doon dugg ci ay mbóoti moo moo garaaw la moo tax jël doomu jàmbur teg ko tas léegi nag ñu taxaw ne Ousmane Sonko di bokk. Hmm. du bokk du dem te bu génnee kooku warul dem kon kay fu mu toll nii war nañ ko bàyyi libération Ousmane Sonko ne ko ñëpp di xaar. Hmm. parce que lii lañ ko doon xaare bien sûr. est-ce que du dañ koy xañ mu bokk ci élection yi parce que. xam nañ mu demee xañ loolu lañ koy xañ. waaw ba lii ñu ko teg nii xañ ko dong la del xool bu ñu defee lii ñuy def mhm. ba def seeni kalaa ba bi li ñuy tabb léegi nga dégg libération Ousmane Sonko parce que amatu leen benn njëriñ ci kaso bi li ñu bëggoon daal mooy xatal Ousmane Sonko ndax Ousmane Ousmane réew mi bëgg nañ ko xale yi bëgg nañ ko askan bi bëgg nañ ko diaspora bi bëgg na ko ñëpp bëgg nañ ko mën naa ne réew mi ñëpp ñëpp ñëpp bu doon 100 pour cent mën naa ne 97 wala 19 sax laay wax 99 pour cent yëpp Ousmane Sonko la ñu bëgg te lu tax ñu bëgg Ousmane Sonko Ousmane Sonko moo won moo yeex sénégalais yi doon nelaw man ak samay moroom ñi nga xam ne ñoo doon nelaw mhm. moo leen yee xamal leen li ci réew mi xamal ñun lu ñu moom xamal ñu suñuy droit génne li nga xam ne mooy droit de l'homme génne li nga xam ne mooy suñu droit mooy suñu wareef li nekk suñu biir ne réew bi di di nelaw nasaraan si di ñëw ñi nga xam ne ñoom ñooy noonu lislaam yi xam nga ne kuy nitu nitu lislaam bu la demee di la kalaame ci ay noonu lislaam boo yeggee da ngay am ndam waaye fu mu toll nii Sénégal amagul indépendance te moom moo taxaw di xale bu ndaw taxaw riposte ndax lan di xeexal réewam xale bu ndaw riposte ndax lan bëgg askanam xale bu ndaw riposte bëgg li nga xam ne ne moom mooy ay bien wu réewam gis askan bi lu ñuy dund baadoole ñun baadoole ñu gën a continuer di doon baadoole milliardaires yi di gën a doog di continuer di daw di doon ay milliardaires di dawal ay kër ay këru milliards la ñuy dawal ay oto 100 millions oto 200 millions dama lay laaj ndax salaire ministre ministre salaire bi ñu fay ndax mën na laa permettre nga jënd nga jënd oto oto ay 100 ba te te ñoom ñëpp ay oto oto yu cher lañuy dawal ñoom ñëpp 1960 ba tey ku ñëw lii ngay dund say poos ngay jël di def di fukki si yow di fukki say mbokk di fukki say famille léegi ñun baadoolee chaque jour dañuy gën a baadoola dañuy gën a dellu ginnaaw dangay xool kër ñi nga xam ne ñoo ñàkk doole ñu nekkoon ay baraak nga xam ne ne yàgg na léegi dañ koo tiwil ci diwil la ñu toll di raser léegi ñoom nag ñi ngi def ay immeuble air prise nangam air prise nangam seen biir kër yi di am lépp lu ñu soxla da leen fay fekk ba dama ne ana yërmande nañu am yërmande ci askan bi mm-hmm. waaye ay nguur yoo xam ne heure bu ñu fi toogee seen bopp lañ fiy toogal seeni askan lañ fiy toogal di jël seeni milliards di ko seddoo seeni biir mm-hmm. nga bàyyi réew mi ni ñu sonn Ousmane Sonko ci lii lay focus Ousmane Sonko ci askan bi lay focus Ousmane Sonko xeexulul ak boppam waaye Ousmane Sonko demalu ay boppam waaye dañ xam ne ne yàllaay kun fa ndegam yéene bii lañu jël def ko ne maanaam Ousmane Sonko du dem du dem du bokk te du duñ ko may mu tabb keneen te keneen ku Ousmane Sonko waxoon moo tax bi ñu naan plan B dama naan la ginnaaw bukki baar waaye bukki bu demee yóbbaale mbaar. plan B est-ce du arrangé waa Pastef tamit. waaw mais bu ñu sampoon plan B sax duñ leen ko nangul. Hmm. su fi nit ñëwoon taxaw taxaw ne Ousmane Sonko lay taxawal barki Rasuulillaahi duñ leen ko nangul parce que noonu noonu la rek. Ousmane Sonko buñ ko nangulul keneen ku fi samp mooy li ma wax keroog rek Ousmane Sonko bu ne woon béy bu musóoru bii votel leen ko wala kañe gi sa votel leen ko mu doon sàmba yaani doo doolee bëri mais lépp loo xam ne Ousmane Sonko da ciy taqe wala koo xam ne dangaa taxaw sax ne su ma toogee su ma amee maa taxawal Ousmane Sonko nga gis que danañu fexe ba gàllankoor la même donte dangay toog pour jàppale Ousmane Sonko sax waaye boo ko waxee danañuy rëq sa ndigg damm say tànk ba xam ne doo jot a taxaw ndax Ousmane Sonko kat yat bi fa mu mu dal dafa neex ndax Ousmane Sonko daf leen wan ne ragaluma leen Ousmane Sonko daf leen wan ne damay tegante yeeg dënn Ousmane Sonko daf leen wan ne on me tue waaye on me déshonoure pas force tranquille la demee ñeme leen ragalu leen ba lépp loo xam ne ne dañ ko doon nëbb Ousmane Sonko da koy génn di ko wax ba ci coono yi sénégalais di dund hmm. yeneen yeneen yoo xam ne dañuy dund kon Ousmane Sonko yaakaar naa ne bu ñu képp ku demoon ak ñoom ak ñi ñu samp Ousmane Sonko képp kuy taxaw Sénégal Ousmane Sonko bu